kii yor élection yi na doon koo xam ni du par parloo féetewul fenn loolu ñun bi nu ko laajee en 2012 président Ablaye Wade bi ñu ko laajee dafa jël benn fonctionnaire boo xam ni moo doon directeur des élections nommé que ministre nanu tànn koo xam ni doy na Sénégalais yi parce que Sénégal image mooy réew moo xam ni élection day am su élection ya pare jàmm am ñi nga xam ni dañ doon xëccoo ki nekk nangu ni gañe nañ leen réew mi continuer di fonctionner loolu nag pour mu am nañ ko teg si fànn yu wóor loolu nag responsabilité président Macky Sall la te incha allah ah, ñu ngi ko see déglu. oui Karim Wade mooy sunu candidat ba fii nu toll tax xalaatunu beneen candidature ndax moom congrès moo ko samp te su neexee yàlla dana ñëw su ñëwee dana campagne. pour que PDS delluwaat au pouvoir